gannaaw yëkkati ba ñu leen yëkkati ni ki fukki fan ak juróom ci weeru ut foofe ca cité Claudel te Descos jiite li ni mel juróom benn njaboot yi yëkkati bi soxal nag ci njaxare lañu toog bopp ba tey di def seen kem kàttan rekk ngir ut pexe naam dig ya ñu leen digoon ngir dëkkalaat leen feneen gisuñu ci dara. tout ça c'est des histoires bi ñu demee ba problème bi ñuy discuter au niveau de Descos. mais qui nga xam directeur d'Escos nee na armée mi ngi qui pour naka ñuy insérer si ay euh, coopérative d'habitat donc nous, ñooñu Sénégalais, kilifa nous avons léegi gisuñu leen gisuñu si c'était des promesses nga xam pour nous calmer mais nous, on dit que vraiment nous sommes des Sénégalais c'est vrai ces gens-là ils ont besoin d'appui c'est 48 familles c'est 48 personnes au moins Nous, mu bonne carte 46 6 familles donc ñooñu dañu war a soxla ndimbal le ministre de l'action sociale ñu ngi koy def appel parce que état dafa am organisation bu mu le ministre de l'action sociale ñu ñu ñu koy woo à ce que il vienne assister ces familles démunies. lu may juróom fukki doom aadama nak le mbir bi soxal ñu ci bëri ci ñom daanaka def nañu as néew fanweeri at ci bërepp bi tey ñi ci gën ndaw nag ñoo nekk di lijjanti ngir ut pexe ci wàll wi. nuñ koy dundee en tant que jeune dafa métti trop dafa métti trop ndax boo nekkee ak ay mag yoo xam ne c'est des retraités de l'armée française waaw yaakaaruñu leen lu seen passion ak seeni i doom yu ñuy faraatu nga ñëw génne leen kenn am ñu bëri amuñu kër wala bu ñu amee kër sax pareegul nga génne leen noonu ci taw bi ñu génn ak seen i bagage du def lu lu métti loolu nga woo say nit ak say xarit ñu ñëw jàppale la.

Nous avons un problème donc def nañu une proposition pour nous recenser ñi nga loger pour que nous ñu cotiser seen villas. villa actuellement ba avons une une villa au niveau de euh, la ZAC qu'ils ont pu trouver avons une bonne famille qui avons une priorité pour nous évacuer sur ce sens donc vous voyez par rapport à ce que li l'État a comme responsabilité Nous avons la situation de ces familles comment les apporter un soutien une, une mesure d'accompagnement. Ce sont des jeunes qui sont nés dans ce camp. Des jeunes Sénégalais qui sont nés dans ce camp, dont leurs papas ont travaillé dans ce camp, te tey jii au secours de ces sinistrés. naru ñu weet nag benn yoon ci xeex bi ndax maître Hassan Dioma Ndiaye nak fas na len dimbali ci dossier bi. ñu ngi remercier Hassan Dioma Ndiaye momi c'est s'est volontaire pour défendre ñu ñu ngi koy remercier bu baax tamit di lancer appel.

maire Fanpoint Point Amitié ki nga xamné ñu koy remercier vraiment parce que tolo tolo bi mu amee ñëw na masaw la famille mettre à la disposition de la famille camion pour ñu évacuer seen ay bagages vraiment ñu ngi remercier le maire de Fanpoint Point Amitié en la personne de Pa Lassam. ñu ne nag tey lenn dong lañu bëgg ñu jox leen seen ak ba mu mat sëkk ba tax na ñoo ngi ñaan dimbal ak fu mënta rek ngir ñu mëna joggé ci situation. bi ñu nekk di dund.